ba jomaay bind fonctionnaire yi Ousmane Sonko fesal ko euh, jub jubal jubanti hmm. mel ne loolu daf fi daf fi tumuranke woon euh, le sénégalais nag euh, ki dëngoon moom xëy na boo ko bëggee jubanti dina la def dina la def ennemi wala adversaire c'est un chantier difficile buñ buñ dugg mais ndax gëm nga ne avec de la volonté et l'appui des sénégalais mën nañ ci am ba dem à une administration très très très efficace waaw volonté bi li ma ci gëm mooy li ngay def yëpp am ba moo amee volonté da joxe exemple bi la pédagogie par l'exemple. la pédagogie par l'exemple Sénégal moom boo defee boo def boo defulee la pédagogie par l'exemple du ne parce que Sénégal ñu ngi xool bés bu nekk buñ la jiitalee la ngay def lu anormal ban heure ngay tëdd ban heure ngay yeewu fan ngay dugg ak fan ngay dem mhm. ak lan ngay def bu ñu xam ne yaa ngi koy def lu ñu wax dara dañuy xëy ñoom di ko def rek donc il faudrait quand même la pédagogie par l'exemple exemple na bi gën a tëdd mooy aujourd'hui que le président Diomaye aujourd'hui il est élu war na joxe c'est bien defoon na ko avant ñu koy fal. non non non avant ñu koy fal déedéet bii conseil conseil nga koy jox ah defe ko da ko def. ak les autres aussi. ah les autres def ko. na joxe na na dem déposé. Ah, parce que mu defoon. këram gi waxul woon ñaata la évalué ko. woon sax boobu dañoo communiqué. Mhm. il était candidat la présidence de la république communiqué ne waxoon na mais dafa nekk benn acte boo xam ne dafa war a ñëw. jël moom la war a commencé. dem yóbbu dem yóbbu ko jox jox création de patrimoine na dem yóbbu ko mu ko yóbbu. ñu publié ne que yóbbu na bu paree premier ministre topp ko yéen ñu topp ci je pense loolu ndax commencé et je pense qu'il mu def ko ah léegi li ñu wootee jub jubal bi ak euh, reddition des comptes euh, lutter contre la corruption ba encourage sax même ñiy yoole ñoom ñu tuddee les lanceurs d'alerte loolu aussi euh, est-ce que mënul am beneen conséquence ci Sénégal maanaam xool nit ki Djibril Wade neexu la wala gis ne am na lu muy jëfandikoo xamu fu mu jëlee nga dem yàq daram maanaam est-ce que Sénégal baaxoo baaxoo woon jikko jikko boobu non non loolu bon euh, euh, c'est-à-dire Sénégal war nga war nañu mën def benn affaire euh, boo gisee lu normal nga taxaw dénoncé ko nga taxaw ci loolu mais na nekk lu dëggu ci yow ah, xam nga tey Mamadou mhm. bu ñu nekkee fi ci circulation bi ñu ñoom ñu rang di xaar benn waaye jógee fële rek jël troisième position daw ñu ñoom dañu war jot bloqué ko bloqué ko mhm. ba alkaati yi ñëw ñu ñu doxoo tant defuñu ko rek pour régler le problème parce que on peut un policier derrière chaque voiture donc impliquer Sénégalais il faut mhm. lii bëgguñu bëgguñu ko boo ñëwee ci banque bi nga ràng boo ñëwee ci stade bi nga ràng boo ñëwee ci feneen nga ràng que les premiers venus qui soient les premiers servis. Mm-hmm. ñu ne war xool suñu bopp. mais loolu combat bi nag c'est un combat personnel boo xam ne Sénégal yi individu bu nekk war nga mën taxaw ci loolu. loolu defe naa ne autorité yi voilà ñoom nañ ko inculquer seen bopp rek war war nañ ko inculquer nañ ko commencé moo tax ma ne déclaration de patrimoine bi ñoom nañ ko def mm-hmm. j'ai vu le jour aujourd'hui que bon euh, que le président le premier ministre Sonko dem na julli ji quelque part nekk nekk ci biti mm-hmm. sous le populisme c'est une bonne chose. parce que ñëw jur gi. toujours populisme waaw c'est bien de le préciser voilà sous le populisme c'est une bonne parce que ñëw rek ñëw rek ñëw rek ñu téye ñëpp nga téye fa ñëpp xaarloo ñëpp. mais aussi l'État aussi daam nu muy doxee. Euh, dëgg la baax na mais tamit euh, bu ko fa tax a arrivé woon mar détaillé lu ñuy wax. maanaam dëgg la xëy na euh, oyof baax na ci kilifa. Hmm. mais tamit am na yoo xam ne euh, sécurité intérieure la sécurité réew mi yëpp la. non non bu c'est-à-dire que aujourd'hui bu ko bëggee def grande mosquée wala mu ne ko Touba wala ba Tivaouane il faut ñu jël les mesures. encadré mais bu waree moom mooy choisir dem ci benn jumaa ba nga xam ne fa la dëkk. comme man ma defee ko dans mon quartier. Hmm. mënuñu chaque jour dans quartier man su ma ñëwee di julli. ñu bloqué ñëpp bàyyi la ba nga jàll bu pare bloqué ñëpp waaye mm-hmm. mm-hmm. euh, dañ def dañ ñun woon def de mm-hmm. dañ leen xëy di wóor bëccëg alalu àdduna jël ko teg ko fële wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw àdduna moo tax ñu topp leen de ba topp seen doom yi sax ba nga xam sax bañ peut-être ñoom sax même bu ñoon topp leen ñun ñu topp leen mm-hmm. Abdoulaye Wade bu ñu ko nit ñi toppee dafa def loo xam ne ñun defuñu ko Sonko aussi bu ko bëgg ñu topp ko bu ko bëgg ñu topp ko def loo xam ne aussi ñun defuñu ko et à ñu topp ko ah léegi rationalisation des dépenses hmm. parce que état ni muy fonctionné diis na trop euh, yaa ngi koy wax léegi bokk na ci rek di la encadré di la topp ci loo ci nekk hmm. euh, mais ñoom li ñu bëgg mooy une gouvernance sobre comme ni ko président Macky Sall wootee woon euh, pour ça am na décision xam ne war nañ ko mën a jël maanaam yenn institutions yi am yuñ boole am yuñ fait disparaître ndax loolu tamit lu xëy na gën a yokk Sénégal ak aussi fan la war a jëm pour jëriñ askan bi d' abord c' est surtout ça nañu xool d' euh, loolu loolu fan lay jëm bu ñu ko jël aussi doo ci ay euh, foo xam ne aussi amuloo njëriñ dëkk bi. Mhm. maintenant les institutions là bon moi je pense aujourd'hui on parle de la suppression du conseil économique social HCCT yëpp ñu ngi ñu ngi koy wax. mais supprimer yëpp aussi il faut ñu xoolaat ko parce que assemblée benn chambre rek aussi au Sénégal est ce que dépassé wu loolu. Mhm. loolu aussi conseil économique am nañu jàpp ne bu baax la. voilà voilà je pense que le conseil économique qui est là. depuis seen war vraiment muy organe ba nga xam ne mmh. ko mën bàyyi. bon man je bu dee loolu rek mais euh, euh, euh, yeneen yi bu ñu ko mënee supprimer supprimer y a problème c'est mmh. mais affaire bi du loolu rek attitude sénégalais yi sénégalais yi seen comportement ak ñun ni ñu comporté loolu la ñu war a. njëkk a xool des fois des ñu def ay dépenses inutiles sunu fête religieuse yi ñu def ci ay choses des choses yoo xam ne c'est inutile ak yu bari yoo xam ne yaraat sénégalais yi ah, ah, génération entière la laaj dama bopp mhm. parce que Sénégal aujourd'hui tant que ñun ñu ngi dépendre ci li ñuy lekk de l'extérieur mais équipe pour développer dëkk bi pour wàññi le pouvoir d'achat des Sénégalais dafay metti gis naa ne jeunes yëpp aujourd'hui topp nañu topp nañu Ousmane Sonko mais nañu seet Ousmane Sonko naka mën a orienté Euh, euh, euh, vers l'agriculture. pourtant ils l'avaient essayé ah. ak seen vacances agricoles patriotes. non nekk nañ ko mettre en œuvre. mu gën a yaatu aussi nañ ko mettre en mu gën a yaatu. Mhm. mais des des nañ ko essayé et parce que quoi qu'on puisse dire ces les jeunes là leen jox ñooñu emploi mhm. mais on pose ñu trouver dans dans un une occupation. une occupation saine donc tey il faut que aujourd'hui la majeure partie de la population sénégalaise la jeunesse sénégalaise il faut que ñu dem vers l'agriculture parce que li ñu taxawal ni ci ci mbedd mi jaay yu ndaw yooyu jaay par benn benn jaay par boobu saa yu opposant wootee ñu ñëw taxaw jaxase dëkk bi dellu dellu delluwaat mhm. loolu écoute euh, dañuy jox loo xam ne euh, les partis d'opposition loo xam ne loo leen affaiblir